defet nga ci jëlee moo tax ma bëgg dalal leen bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb bëgg waxtaan ak ñoom seen carrière ma bàyyi leen ñu nuyoo ñëwal waxtaan wi ñu nuyu naa la. waaw Zé maa ngi lay fay ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonante bi di sant suñu ñaari waajur di gërëm bu baax a baax a baax di gërëm gaa fi nekk yëpp su ma mbokki mbër yi ku si mel ni Zil ku si mel ni Ameth Lo sama doom day la booy bi sama gaañ la nag de. Mm. di gërëm di di bëggee tamit Mamor quoi di bëggee sa gërëm ki nga xamante ni mooy caatu meer laay day dee si man chaque jour bu dul làmb di làmb yëpp day dee si man namuma dara ndax moom daal ni ma la ko mën a waxee. namuma dara ndax moom yàlla boo namu dara ndax moom. maamoo nuyu naa la. waaw onze billah bisimilah ina yàlla ginnaaw bu ñu santee yàlla ñu ngi julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur ñaanal sama papa yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana firdawsi di ñaanal sama yaay xam nga mu dund ba fekkee suñuy njariñ daal ñun ñëpp. nuyu sama doomu nday sama xarit landing avance bu ma jëli ñoo ànd jëli ko fu ma jëm moom mooy yóbbu taal teem sama def si essence xam nga di sama doomu nday bu woo fit ak xaarim du seek di nuyu àdduna bi yëpp. bu fit moom amatul fit ndax daa daw. waaw suñu faalu mbër yeeg rek. mooy loolu gars yi mooy loolu. bu woo fit la ndaanaan la. li mu mën daal xaañ jàpp booy bawal xam nga li ma ko tànk loolu yàgg na <laughs> yaa ma gën a xam nuyu nañ ñëpp bëggee champion yi fi nekk Boy Zil xam nga ak champion bi Ahmed Lo xam nga ak gars yi fi nekk yëpp di la bëggee yow tamit yaa ngi def geste bu naaj si làmb xam yaa ngi doxal làmb daal combat yëpp fii lay taxawee. barke sëñ Bamba. <laughs> gis ngeen combat yi fi ba tax na tey ñoom ñaar ma dalal leen fi euh, bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb ndax ñoom ñaar ñi ma fi dalal tey ku ci nekk sa combat bi nga mujjee ba dañ koy jof wane jom fulla fayda mais ñoom ñaar ñi booy xool seen combat li koy yàq mooy euh, fit gu bari wala jom ju ëpp wala boog euh, nan laa ko mën a waxee excès de confiance. moo yàq seen combat bu ma ñëwee ci ci ci njiin diggante mook moom moom Bulldozer la woon balaa ma ñëw sax ci combat bi ma laaj ko ñaata combat nga jot def ak ñaata victoire. 15 combat laa def 10 victoire 4 benn sans verdict. benn euh, sa combat yaag yaag Bulldozer mu nekk combat wax nga ne bi yàgg na. combat bi metti na. lan moo waral sa diggante yow Bulldozer. waaw Bulldozer dafa doon koo xamante ni tamit. booy ko tuuti. nekkoon si yoon yaa ma gën a xam. de prouvé woon dugg si kalaaf jël. amaana nag gis nga làmb am na foo xamante ne bu fa tolloo mooy doo mën a arrière quoi ndax jamono jooju saison bi léegi mu tëj chaque instant ku ma wax ki mooy wax muy Bulldozer dem ba wax ji gën a bari nag su may nopp du ma bëgg lu dul jël ko ndax su ma yoonu làmb ndax tamit toog ane balance tamit amul sens si làmb ndax tamit loo toog rek at yaa ngi dem waaw say morom ñu ngi bëri di dem mhm. kon mu doonoon booy bu privé tamit du sax su ma yoonu làmb mais làmb ju na dessin la lu ne ah ni ko yàlla ji tuddee rek bëggoo woon bëggoo woon bulldozer non boobu maa ngi doon yuutu ñeneen jamono jooju maa ngi doon waaye Youssou Ndour mais suñu combat maa moom dañ ko dox benn budul ñaar mu bañ te nit ki tamit bu bañee doo ñëw fokk ci loxoom naka force dañuy bëre man su may morom ñi ma waroon a bëri laa bërilul mais bi ñu waxee tamit moom bulldozer mais loolu loolu ci lan la sa staff la wala yow yaa yàkkamti non pas yàkkamti parce que man tey boo xoolee tey si yoonu làmb mm-hmm. imaginal ma daan xumbal xumbal bu mm-hmm. Pikine daan daan daan daan jaan jaag Magic Sène tegle ka ñëw jaan daan Tonnerre 2 moo Youssou Ndour ñu naan daan naax daanul ma ñëw jaal ka daan ka kon tey am na loo xamante ne nañu waxante dëgg ay bulldozer doon loon sama yoonu làmb mais tey yàlla moo ne woon carrément sa yoon sa carrière làmb yaa bulldozer di ngeen si bëre te yàlla dina ko may ndam loolu man mënuma si dara. lu taxoon combat bi métti nga xam. combat boobu li waraloon mu métti jamono jooju ñu ngi woon si wàllu euh, coronavirus bi. man yàlla xam na ni gëw ma woon sax année boobu dinañ ko bëri ah ku dee sa bàmmeel. da nga doon nooyee bon maa woon saal rek laa doon dem. saal laa doon dem saal kase. billaahi wallaahi di àndaa sama gars dem saal kase dew ma ikiri dawi jiw ma boobu gars yi sax dajaw ñu. kon combat bi dala bett. combat bu ma bett si si quatorze jours laa ko jël date buñ toogoon di ko xaar loo xamante ni xaw na man ñaari at. Mhm. même buñ ne la samedi sax wala dimanche. da nga koy bëgg a jël pour dégager avance jàmbur bi nga yor. jamono jooju làmba ji métti na mhm. chaque instant yow xam nga mbër a mbër bu ñu xasee ba jëlante avance. jeex na kenn du la ko wax. boo toogee ñu ngi sa kaw. Mhm. te jamono jooju maa ngi toog di noyal di nekk si leneen di entraîne di di dem saalaxa ñëw jàppani komba bi du am moo tax bi ñu tël na am na du ma jël lu dul nangu ko tamit. dem mhm. continuer su may contact presque ay 10 jours lañ si contact combat bi ñëw gis nga bi mu ñëwee man suma combat daaw ma ko négocier daaw ma ko négocier mais combat dama xam ni man mii ku wax ak sa bàmmeel lii desoon si man si préparation bari na. yàlla xam na loolu dafa bari. mais maanaam même bu ma pare woon sax bu ma pare woon carrément yàlla li mu tuddee nii si ma diggante ak bi laser bu ma ñëwee tamit nii lay demee kon yàlla suñu borom moom noppi na. Mhm. kon dama koy ñaanal ndam loolu yàlla na ko jig yàlla na ko jig man mu amaatee combat yàlla defal ma ndam. mais bi nga jóge ci euh, toogaay toog bi tamit xaw a yàggaat. waaw toog bi xaw yàgg trop mais maa ñu doon wax am na benn jour sax nee nga ma sama combat maa ngi taxaw na. mais ma dem ba ci bii gis mu yàqu. foofu moom dinañ fa pause tuuti ndax booy boobu fan yi defe naa ni moo ngi continuer def performance ba léegi defe naa ne mënoo ko bañ de moom. moom mu ngi si mu ngi si yoonam mu ngi si yoonam. waaw pause ko foofu dinañ ci ñëw parce que booy boobu yaa ak moom combat du ko daax mu ñëw ci Mamor Mamor sa digganteeg euh, Cheikh sa digganteeg Cheikh te ngeen plateau fi ngeen tase coow li bàyyi na mayuloo ko jàmm. mais mais maam moo nga ñëw ci stade bi kenn xàmmeewu la. waaw kenn xàmmewul maam moo maam moo ñëw noo war a ñàkk la non déedéet doo ñëw ci yow nga ñëw yow yow foo ko fekk du am jàmm nga ñëw nga ba war a ñàkk loolu tamit nag. seex dama ko doon dimbali rek may ko loxo xam mu ñëw bokk si biir gaay non mais de defal ndànk. mais mooy loolu yàlla ko yàlla defal jàmm rek yoonam neex ko waaw ñun ñii ñëpp dañuy daan dafay ku fi bëre da ngay daan ñu daan la. non bëgg ñëw ci combat parce que ngeen toog ñu ñaar non kaay kaay kaay foofu moom du la bàyyi nga dem foofu la bàyyi seex fi ngeen ñëw ngeen ñaar waaye mais loolu xam nga rek jaay combat la pour bëre. mais la moo tax mi ñëw ci ci ci làmb ja bëriwul xam nga ma mosuma si biir a ma sax mu demee man ay musique gaw ma ko. mooy loolu bis boo war a la rek. ak maamoon ni mu bandee. loolu amul maamoon ni mu amee sañ-sañ. non man damaa mën bëre amul ay bandi de man damaa a bëre man samay morom kenn dàq ma si bëre man dama mën a bëre loolu man nekkul maa ko waxal sama boobu sax mais noonu moo bëgg xam mooy dañ la laal mais da nga wala da ci làmb ji nga. kenn laalu ma maa juum rek non damaa juum waaw xam nga ñu daan ma ma koy sante yàlla tamit munoo daan ñëpp da ngay ñëw ñu ñii nga daan leen ñee daan la xam nga mais cooli cooli mooy kii toog man loolu moom fi indi man ay kee yow da nga yàqamti amul xam nga dañuy wax li ñuy wax si ñu dem suñu yoon ñeneen ñëw toog loolu la cooli mooy cooli lii la maa ngi moom combat la nañ ko signé xam nga mu jël amaat ñu bëre bàyyi faal reyante ku nekk xool leneen si defet la jógee ma jóge si defet lan lan moo tax nga bëgg a bëgg kii non champion la man dama di bëri ay ndaanaan ay jàmbaar xam nga ndax man jàmbaar laa mooy loolu kii ndaanaan la ñu daan ñëpp di set yaa ci ñaari combat yow 10 combat laa am coow moom 17 laa am man 10 man am naa set victoire ñaari defet ñaari defet laa am par ab 4 appel laa ko daanoo mbër musuma daan si làmb daanoo jàpp ma ne daanoo ko moom man damaa jàpp ni aw ma defet mbër musuma jaaxaan loo hmm. jigéen kii sawar na ci yow de booy bi sawar na ci yow trop. waaw Mamor la wax dëgg yàlla champion la. man bëri nag li ma neex ci ñoom mooy daf ci am ñoo am te ne dañoo gaaw a fuuy dañuy gaaw a xam nga wéew toog <laughs> fi mu mu toll nii dala xaw a xeeb gis nga <laughs> loolu la. <laughs> loolu la nga bëri mbër mooy li ma rek gis nga Mamor mi mën na ma raw si làmb dem ma topp si ginnaawam. waaw booy mën na ma raw si làmb dem ma topp si ginnaawam. léegi mhm. souvent si duggee. da ngay ñëw gis écrit boo xamante ni da nga siy dugg gis ay booyu ndaw yoo xamante ni duñ xamagul sax làmb si benn si tegtal si rock énergie même Modou bu daan dem sax duñ ko convoqué da daan ñëw ba buntu Ibamaar taxaw si bunte bi bëgg a dugg du dugg mhm. tey mooy kilifa gi foofu yow moo fa jiite mhm. man moo tax souvent chaque jour booy si écrit dama koy respecté moo mooy booy si làmb tamit moom laa yemale man mbër laa amal jàmm mhm. maamoor mii maax moom gisante nañ ba taay dañuy nuyoo mais maanaam amuñu connaissance boobu tey jàmbaar la man mbër duma ma la du ma la duma la critiquer quoi. Hmm. li nga xamante ni moo nekk si moom làmbaam day neex. day bëre day xeex day day bëre day xeex seetaan naa ko mu zine mi seetaan naa ko mu wax ñenaan ñeneen boo si seetaanee signature rek da ngay ba sonn. Hmm. làmb mu wax ànd jamono ji làmb boo saful xorom doo si dara. déedéet waaw kon mu wax loolu ñoo ànd. mais tey dama ñu la làmb. Hmm. làmb ju ne yoon la. làmb ju ne yoon la. tey maamoor bi mënoon naa toog ne damay bëree moom. si bëgg a moom mais tey ana waa làmb tey bu ma ne woon maax Mamor tey dinañ ñi gin mi xanaa yoonu làmbaam carrière làmbaam xanaa bëggus dara da ngay xool si booy bi ma jógee may ko chance delluwaat ginnaaw bëgg a ñëwaat mayaat beneen booy chance muy Mamor tey loolu ndax man sama làmb man bëgg naa si dara ëllëg ndax bëgg naa si teral ñi nga xamante ni ñoo topp sama ginnaaw nañu waxante dëgg tamit te yàlla tax quoi eh, kii ay waxu imaam la fiy wax ay yooyu kii Paul bu daaru sa waay da ko mujjee daan bulldozer bulldozer daanu pël bu daaru. daan kii ma daan pël bu daaru. kii yow làmb adversaire moo ñu boole nekkul damaa bëgg a bëre ak yow pour loolu de sama yoonu làmb yow la par force dangay ñëw ñu bëre. maamul ay <laughs> maamul daaru moo kii benn lañ. <laughs> bulldozer da ko daan daan ñoo tolloo de boo paree ñu bokk benn adversaire bu leen daan ma ñëw daan pël bu daaru. non affaire du si loolu. ñoo ñu bëre. affaire du loolu làmb dafa am yoon. man taw ma tëb rek ma ne damay bëri yow de damaa xool sama plan de carrière kan la muy yow. gis nga Mamor yow. ma calculé mu jox ma yow yow. égal <laughs> égal bi mooy moom. moom la bàyyi faal ñoo ñu bëree nga bàyyi sa yi ngay def français lu bi. billaahi wallaahi sa plateau ah. ñu boole rek maa ma maa. non non barki Serigne Touba Mbacke. du plateau adversaire moo ñu boole combat pour le moment daan da ki daan dama koo daan. si kanam nag mën naa bëre moom mais ah, léegi lamb amul loolu de lamb léegi kase la de dara sama lamb. bu Siteu ngii di bëre ak Laurent te. non loolu business amatul loolu. loolu business bu Siteu la xam bëre rek papa. sànq dama dégg amul loolu la dégg nga naan ko xanaa sa kase nga may dolli. non damay jël kase lépp garaawul. bari man kase ñun li ñu koy si làmb day xaalis làmb da ngay nangu. barke sëñ Bamba lu ma def loo ma def. kii bu ñu doon bëre tey da waaye yow. te bëggee nga ma dooleel ko loolu. problème kii làmb gaa yeeg sama ginnaaw kii bu bëree moom tey avancement am la moom si làmb. kii maa moom yamuñu si làmb xaalis daal su ma déggee. barki alxuraanu karim tey bu ma doon bëree moom bu ñu xaalis boolewul lan moo ñuy boole. du du lamb non yow da teel def sa bopp champion. non du Baye Fall man maa ma moo tax may bëree ay booy man <laughs> bu ñu tëjee barrière yi barki Serigne Bamba moo dala jàppal fi nga jàppal bu mu gën a waaw ko bëree man waaw bu ñu wàccee ñaari combat ñaari boo ma si daanee benn mu bëree yow barki alxuraanul kay dama lay jàngal bëri fii nii man mën nga ma jàngal li fi ñoom ñoom amelloo ñu caméra la deux fois nga si benn billaahi ma bëre loolu amul maa moom mbër kii li nekk si man nekk ah billaahi soixante dix mille fois maa ko dàq bëre ku dàq xeex lépp si làmb maa ko dàq musique mën na ma ko man loolu rek laay jooy musique sëriñ Bamba laa la giñal barke sëriñ Fallou kii maa ko dàq bëre waa léegi loolu kañ man gis nga nag. loolu moom laa bëri dafa la wax dafa yaatu de mooy. di ko si ginnaaw. billaahi mooy sa jur moom doo kii ba moom laa la wax. pour gars yi mu gis. damaa gën a bëri wax rek. bu ma bëree moom fii nii. billaahi bu yàggee yàlla xam na ni mu bëree moom bu ko neexee nay arrière. waaye loolu loolu ay waxu mbër la yàllaa ma tiim bu bëggee ma la yàllaa ma tiim billaahi loolu ay waxu mbër la mbër c'est booy leen jël di si yàq sama xaalis di waaj di dama xa ñëw xalaatuma ka yow da ngaa baax rek yow da nga maa gën a bëri wax tey laa tey laa doo mu gën ma bëri wax. non xamal moo tax <laughs> Serigne Ba xamal moo tax xool kii li mu wax lu mu wax fi yëpp yow. non dama xam ne du yàmba. mais lu sa doom kii bi ñu xool naan niin nga xam fii lañ koy maye ba pare. billaahi bu ma daanee wala. waa léegi lan moo gën a yomb a a tuuti. billaahi ma bëree moom maa ko wax. waa léegi parce que alxuraan loolu loolu loolu xam nga dafa gà. waaw dinaa bëree ñoom. léegi a na de. waaw xam wax nii. ah yow tamit dëgg la naa xaalis. dañu wàcc ñu paree ko. ko ngeen taal caméra yi ñu may ko. baal bañ pare loolu yàggul damay baal. non da ngay man da nga teg xaalis wala tegoo xaalis. loo bëgg ma tegal la ka dama lay daan. moo fi aaree daane ba pare gars yi dugal na TikTok yëpp man damay sa morom ci wàllu làmb bu leer noonu ma daan. yow da ngaa dafa gëj a bëre kii dafa gëj a laal avance gëj a bëre damaa gëj a bëre damaa gëj a bëre dafa sig ba yàqu. ñoo la gën a sig foofu mais dama gën a sig yëpp. samay morom mais du ma bëre koo xamante ne tey jii nii ma xam moom làmb boolewuñu Zé mooy li ma la waxoon rek kon la man jamono ji. yow Bulldozer moo la daan. yow Bulldozer bu ma gëmoon mënu ma daan man. Bulldozer ma daan nee naa la ndaanal la gëmoon mënu ma daan man. te dina daan keneen ku dul man si làmb. Bulldozer xale la ki daan booy la. booy bu ndaw la prouvé. def loo xamante ne moom mi dafa ko si làmb. ji dugg si kalaaf moo ay moromam rangé na leen ñoom ñëpp. am am quatre personnes am trois grands combats am daan ka. door a bëri man waaye a eh, la ko. gis man soxoruma ñu jox la. dama dëkk topp suñu. ginnaaw soxoruma la bi désert. champion champion. nga naan maay grand la defal jàmm nii wax. gis yow mbër yow bi désert ma daan champion la ndaanaan la mais dama ne la man dañu ma daan man duñu ma ko daan si la man ñi ma daan ay ndaanal la yomb yooyu man duñu ma ko daan loolu nga def yow loolu ma def loolu nga def la lañ ma def kii moo gën a nooy lañ ma daanoo yàlla sàkk la lañ ma def kii déclenchement bi mu déclenché rek bañ ci ka loolu rek dafa yomb si làmb kii bu ko defoon ma rey ka cuune cuune boo xamante ni kii mu ne maa ñooy ñooy Modou Lo wala ñooy roi de kii dafa neex a dëpp ñi mënuñu billaahi wallaahi kii yow tamit kii bëri dafa ne si yaram <laughs> mbër na nag mbër la mbër lu ne lay ñëwee kon daa am mbër yoo xam dañuy nekk mbër ba noppi. mais gis nga mbër di nga ñëw sans kale. laa nekk ki dafa bëri wax. sa lamba xoolal dara barki sëriñ ñëw yor benn kale bëri wax am na ñoo xamante ni yow xoroma leen yóbbu si làmb kenn du la maamoor saful xorom mais dama ñu la wàllu làmba man du maa ñii te zane. war na sëriñ la émission respecté la yow dama la respecté ndax démb bi mu woowee téléphone démb nga ma woo wax ma mën na la carrément carrément booy bu ñu yow kii maa ngi ëpp bi ma waxee yow a ma koy invité. barke alxuraanul karim. yow laa ñëw seen mbabar yooyu toj ko. toj na la. waaw man mbabar yi ma ñëw BCEAO yow. dama la faa eh, gis barki Serigne Bamba. non yoof nga wax yow yoof nga wax de eh, eh, eh, yoof nga wax. waay booy defal yoof. yoof xanaa yaa ñoom caatu ngéwél doon bëri xanaa. caatu moom. caatu ngéwél daa mat nit. caatu ngéwél wax man sama taay ak sama. sama alxuraan da lay jàngal bëri. foofu moo finaaloon de. fi ngay wax finaaloon. foofu bébé Diène moo ko jël nga am ay caatu ngéwél. moo finaaloon laa la wax. mbapat yi ngay wax nii. ba pare yi wax nii Pérez moo tëgg mbabat bi 3 mois la. caatu ngeen si loolu la génne. Ah, mbabat yi 3 mois si loolu la génne. ku final ay caatu ku final ah, si loolu la génne. caatu ngeen caatu ngeen woon bébé yéen ñu ngi dégg daanaka si wàllu mbabat barki alxuraanu karim. xam nga des fois am na lamb yoo xamante a yoru sa yaram mbabat mbër yow jëlal combat bi ñu bëree pour lan ñu bëre ma indi xaalis. waaw yow la ma jël ci kanam. maama du ma bëree yow nag. waaw man da nga fay. yow dama lay déclencher. la fay ba de. ñoo ma mbëru coomo coomo de dañ la ñu woo ñun. chaque dimanche chaque dimanche dara ci fay. damay neexal bi nii. ma lay laaj nii barki yàlla ma yokk coow làmb bis bu neex la de waaw yow sëñ ñun bés. waaw yow maa yow bi la tey bu ma nangu woon promoteur dinañ ne waa man kan moo ko si war a tëgg ndax suñu xaalis duñu ko si def yow maa yow du làmb promoteur bu ñuy def seen xaalis dañ koy def si làmb bu ñor bu neex. yow xanaa géwélu lebu ba bu mag. yoo ko xamoon lay demee kay kay damaa barke Sëriñ Bamba. tey laa doog a gis ku bëree mbër bu bëree wax nii. waaw damaa waaru. <laughs> billaahi. kii dafa ma gën a bëri wax. bu ma géwél lebu géwél laa de. mais kii ñu tëj barrière yi ngeem bu dongale ma romb ko barke yàlla mu voilà Maam Mor après nga dogale suuf. boo paree yow xaalis laa indaale. man xaalis laa indaale maa yow a yow. yorul ah, laa siy teg barke Serigne Bamba. yorul adduna yorul adduna. après maa yow ñu wàcc suuf. nañu wax ju bari bàyyi fa ko puus nga naa ma wàcc. non fii fan caméra wax caméra jàmbur. si maa yow a buñ doon bëri di ma daanee yow loolu kan jéem yow kii Alsaan Mbaye la a àndal di taal. yow Ndiaga Mbaye moom Ndiaga Mbaye. wóor na yàlla yow yi ngay def ni amul. Eh, man gëwuma loolu. bala nga doon xam suma adversaire toog fi ku ma war a bëral. yow ñu ngi ku bëree Bulldozer moom. buggul nga génn ko di tudd benn adversaire loolu c'est que man ah moom ma daan Serigne Touba kii bu ñu ko géewaloon ak Boysil Boysil daan ko Pël bu daan ko. daan ko Lex daan ko yow koo bëri koo koo bëri gàcce ngaalaama ñoom cuunañ ñëpp ay champion lañ dooma jaaxase kenn ki sumay booy lañ booy jël mi ki nga daan ku ma xamul sax ndaanaan la man laa la wax man ax moom bu doon bu doon làmb suñu wax ne mais ma moom duñ ko mbaa kii waa ji ma wax moom sax tey dafa bëri <laughs> du làmb kii tey émission bii nii sa émission la rek dama koy neexal de mais kii maa moom du làmb de kii bu gëm ko bokk démb démb dem nga ma woo. yow ma wax la adversaire nga woo ko mu ñëw. kii gëmawul loolu. nga nga ma Mamor. man sama téere baa day neex kon yàlla bu ma am dara si làmb. eh kañ nga ma wax Mamour Kébé yooyu. yow midi ba léegi yaa ngi toog fi di ko ah, xaar tey. kañ nga ma ko wax. midi ba léegi yaa ngi toog fi di ko xaar tey da nga ma laaj ma la intéressé woon. da nga ma laaj dem ñibbi. kon yàlla bu ah yàlla bu ma amati toog midi ba deux heures. kon yàlla bu ma amati dara si làmb. billahi bu doon démb la ma xamal ni maa ngi ñëw du ma ñëw. waaw du ma jënd yàpp laa. Eh, bi ma ñëwee ba fii toog. man du ma jënd laa la wax yàpp laa. nga ne ma am na mbër bu ma woo. jën nga da ngaa yomb. déglu ma rek mu ne ma am na mbër bu ma woo. ay jën ngay lekk mais nee na nee na nga jënd galaas toog ma ne la kan la. jënd galaas man maa ngi nii man la. man de man la dem ñëwoon. ma ne la kan la. bàyyi ma ne ma sa diggante waa moom la daal la waaw yow maa moor man. nga ne ma maa maa nga ne ma maa moor man la non ñooñu du sumay adversaire. keneen koo xam ne ma ne la yow ma ne la yow yow yaa tax man ma ñëw te boo ma indi loon yaaw jaal sax damay wax moom nii. yaaw man su yaaw jaal toogoon fi du ma toog de. barki alxuraanu karim damay moom comme yaaw jaal si man jamono jiñ toog. ban yaaw jaal parce que si wàllu làmb maa moom du daray làmb mais léegi léegi dangaa fay te vidéo bi bu génnee gaa yi dinañ ñu gis lu mu doon def si kii. bilaay wala dangaa fay. bilaay dinañ ko wax mais yow yaa tax ku ko mën tuddee seen nga xam ne yow yaa tax man ma def loolu yow. Ouzin bi yow wër na yàlla gëj nga contact gëj nga jàppante. da ngaa leer naa ñu instant bi. sa eh, sa lu la neex la nekk non sa waay daa am xaalis jàppale junni yoon xaalis. am ko jàppale après nga may paas. comme te yaa ma xaalis. léegi daa la koy may. am ah, daa may si njisal yi. maa ma rek boo ma joxee may léegi loolu laa nga for la mu paas. kanam gi xaw ma dara nañu wax da dëgg bàyyi mbër yi xool ñii ñëpp ay mbër lañ xool booy si. ala kanam gi waaye xam ne dafa leer rek xool <laughs> sa kanam gi Ameth Lo Ameth Lo bàyyi la mbër la mbër la nekk si lu la si appartement yi yow ma ñëw. nañu wax si cadre lamb bu bàyyi loolu. mooy maa ah. ngi yow combat la. waa nañu wax lamb rek mais. fàtte ah, nga ah, nañ <laughs> mu mu rafet. <laughs> mën na tey mun mun mun maa xuus si waxtaan bi. la maanaam kii bu taxoo mu neex bu bëree mu neex. ñun ñaanuñu yàlla di bëre di arrière yow ñaan yàlla di bëri di avancé lu tax ma bëgg a bëreeg moom man xam naa ko su ma bëreeg moom su ma ko daanee daf may day sama lu bari si làmb. la wax dafa sama coow làmb a mu toog mais wax naa wax nii barke Serigne Bamba dama ko si xeeb. non moo tax kon fi bu mbaa bi taxawoon jàmm day jeex sa diggante ak moom. non kii moom moo la gën a xam man ak moom day metti non xam nga problème bi gis nga man soxoruma te xam na ne boo xoolee sama kanam da ngay xam ni du ma nit ku soxor. Mhm. wax naa ko avant nee naa la maam moo wax si qualité yoo xamante ni si moom te bu ma nee seetaanuma ay làmbaam damay wax lu ma neex. Mhm. seetaan bu ma ko seetaanee seetaanuma xoon pour adversaire mais da daan seetaan mu jéemoon ma ma toog di xaar combat am ndax man bu dul dara rek communication am dama neex wax naa la ko avant. loolu dafa am si mbërëm. tey yaa ma tey moom sa communication moo neex. am na ñoo xamante déggoo li ma wax am na ñoo xamante ne man ci làmba dañ may faj loolu la yàlla def kenn mënu si dara du comédie mbër la yaa ngi dégg moom mbër la. alburi bi ngay gis ni mbër la mais suñu waa kër ñoom moom la ñuy bëgg si wàllu saa bu defee dara su ma rakaama kay avant alburi meen na. làmb mooy loolu ñoo kenn mënu si dara. nit ku nekk ak na fi presque ay cinq combats kenn xamu ko. mais yow dama déggoon sa combat dafa taxawoon. waaw. sa diggante ak Mor Kankang luy problème bi. Mor pour ma leeral la si dama ne woon sax du ma si waat dama daan magam Tonnerre 2. Hmm. laa daan booy bi amatul jàmm si addunaam. combat bu ma bëre fu mu mënti la jeex man dinaa bëre yow te ngi say tànk. ba bi mu daanee moo doon wax moo ma ko doon wax ba bi mu daanee boo yëmbal ñu laa la boo yëmbal. Hmm. bi mu ko daanee arène nationale xam nga yàggul dañ gisante si biti mu départ oññeeku daw ba ñëw ba si man na ma xanaa léegi jot na ma ne ko booy demal rek lu jot yomba bi mu boobu luy nekkoon problème da nga ko xeeboon wala boog danga jàppoon ni mënagu leen ba yéen. non jamono jooju man xam naa ne si wàllu làmb. Mhm. parce que tey bi dee wàllu làmb tey man bëri naa ñoo xamante ni moom bëriwul ak ñoom mais làmb dabante la. Mhm. ma dem ba xam ni booy bii nii pour le moment prouvé na te daanaka dina am fu ma dollil si làmb ndax tey amateurs yi wàllu làmb ñëpp a teg si moom. Mhm. tey ku muy bëril dañ jàpp moom moo man ma ni booy bu mës duggee man na doon kon sama combat jeunesse boo xamante ni bu ma ko daanee rek su ma làmba dinaa tegwaat foo xamante ni sax dina dina gën a kawe sama ñor ndax booy bi mën a bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax mm-hmm. ma ni kon garaawul bi ma oowee man mu des si man mojja wax seex man su may làmb mojja moo koy dox moom moom moom la gars yi di aw téléphone ak yëpp man du mas dara na ma carrément sa diggante Mor Kankam la gars yi wax bi mu ñëwee wax man ah ma ne ko booy boobu ma ma yaa gën a bëgg a bëreex man de est ce moom kon laa bëggul bëreex man moo tax Fallou Ndiaye ooñu cela n'est que kon nañ ji ma xool bu fekkee moom moo fi sës ama mënatuñu am adversaire boo xamante ni war nañu mën a jariñ si làmb hmm. ñu jël ko ñu jiim si liggéey moo jarama ma ne ko waaw mu ne ma kon baax na bi ñu ooyee Matar Ndiaye tamit wax seex moom loolu mu ne man xam naa ne bëgg na combat ma ne ko du loolu mais lépp loo mënti gis waxtaan la hmm. si la nga ma léegi booy bi moom nangu na ma ne léegi ñun baax na garaawul Fallou Ndiaye ne suba ginnaaw suba ma jox leen avance ñu demaat ba si biir ma toogaat ba mu trois jours ma owaat Matar Ndiaye Matar Ndiaye ma ne ko waa yow boobu léegi avancé a génn mu ne ma booy bi de si tànk yi mu nekk xalaat naa tànki delloowaat ka la nekk quoi biñ toogee toog toog mu jekki saa na ma booy bi delloowaat na ko delloowaat na combat bi bi biñ dawee daw daw daw daw daw ma ne Matar Ndiaye bu fekkee booy bi dafa delloo combat bi léegi xamal laa bëgg dossier booy bu leen ma ko waxati quoi ndax booy bi moom kese du nekk sama kanam te booy bi deful si làmb lu ma deful si làmb bi dee coow ëpp ma ko. yaa ngi dégg Matar ñu demaat ba si kanam mu ne ma booy bi waan na combat bi jëlaat na ko. xoolal loolu ma ne kon garaawul commencé yëgale ba commencé def affiche yëpp ñu génn ko ñu commencé TikTok bi yëpp di daw ñu demaat ba si biir booy bi na moom bëreetul ndax seen woowu xaw ma ay ndijaayam xaw ma. ñoom ñoo xam daal waaw ay ndijaayam genre jotaay yu mel noonu. ma ne kon garaawul na Matar Ndiaye mu ne ma ma ne ko dossier mu ne ma ma ne bu ma kenn waxati. moom moo soxla woon sama combat moom te dañu bi ma daanee magam daka mitti ba mu toogoon di si wax kon combat bu taxee pour man si man la war a yàqoo pas moom ma ne ko nag ay dossier am boo leen ma ko wax de ma ne ko xoolal yeneen mbër jamono jooju pare naa ma ne ko ku ñëw baax na ndax boobu bëgg naa bëre te émission maa ngi doon yëgale gaa yi ngi doon préparé mais làmba ju ne ah li ko waral mais moom sama combat moom si moom la yàqu. si moom moom la yàqu mais ci moom la yàqoo mu jóge fa jël dab daan amaat ci kaw ci victoire ci kaw dab daan waaw. bu la laatoon avance. waaw da ngay xool tey nga sa combat gin moo ëpp coow xam nga ne man sama combat Mor Kankaam jamono jooju moo ëpp coow moo dam daan coow lu mag la. barki alxuraanul karim tey xam nga ne ku fi bàyyi gin dem jël dab daan du question koo xamante ni moo raw gin da nga bëgg sa làmb ju yomb moo tax mu dem jël dab daan. da doon xool lu da doon xool ko gën a arrangé ak lu ko gën a nooy. waaw man mi xoolul lu nooy nag yow bàyyi yow nu mu. defee jàmbaar nga dem toolu si xaar ñu ba xam nga loolu xooluñu lu nooy ñu lu métti lañ bëgg. non yow di am lu métti. xam nga ah, yow laa bëgg nga naan ma ay di am lu métti looloo waral ma keneen de. looloo man dama am sama samay siboore dama leen ma daan war na ma mën a daan mais ñoom gëmuñ ni kooku waroon na ma daan. waaw loolu day xam nga li ma la wax. Mhm. dama leen bëgg fay bor bi il faut ma daan daanaan daan champion. te kii mhm. booy yëpp moo si gën a métti. Mhm. day xeex lay bëre day indi état mais moom ndeysaan nawloowu ma quoi. non lu nawloo ma Amar bu la wax loolu man du ma xeeb doomu ah, aadama. waaw ñu mayante xaalis bu ñàkk nawloo mais la. du avance. gis nga gis nga bëreew dañuy per. billaay du ñàkk nawloo xam na loolu man doomu aadama du ma la. toogee deux ans bëre man gëj naa bëri waaw si Bulldozer laa gëj a bëri. ñëwoon ñu laale mais lamba ji. léegi léegi gaañ bi mooy loolu barke Sëñ Bamba mais nag est-ce que doo ce que doo jël kii gannaaw lu nooy la te ko mën nga soqaliwaat ci kawam. <laughs> mais mais mais du loolu. gis nga làmba du loolu gis nga tey. gis nga làmba du ko fël rek. tey dama dégg sànq nga ne yaa ko dàq ba yaa ko. non Mamor te moom mii te moom mii gis naa ne bëreeg yow jalal na ko lu ne. non Mamor tey ci taay bu <laughs> la da nga daw. paquet benn song laa lay song man bëriwuma ñi ma daan ñëpp benn song la. waaw wax na ko de nee dem sama yoon. dem sama de la yow combat bi damaa ñëw mënumaa song sama carte mémoire bi réer. <laughs> wax dañ ko format. billaay mais <laughs> kii xam nga ne mu bàyyi ah mais tamit ay xale lañ ko waa xam nga ah, ñun làmb kese lañ am mooy li ma koy wax dañ ko bëgg quoi amuru làmb lañ am. gis ngeen boobu ni lay demee ci jàmmaarloo woo ñaari mbër waxtaan ak ñoom wax ji li jëm seen carrière bàyyi ko loolu amul solo. bilaay gis nga bëgg programme quoi. non yàlla xam nañu su ma woowee dama ma yeekut fitna bi foo nekk. non yow yow kay tey bàyyi naa la <laughs> mais xam nga mais. mooy ni ma la wax rek gis nga làmba làmba ju làmba ju jot rek dina taxaw incha allah si kàttanu yàlla mais Mamor nee naa la man xeebu ma ko tuutal. mais fi mu toll nii kii bu la avance bu doy avance bu doy laa la wax. avance def bu la seetoon andee wala avance bu doy. waaw mais Seye xam nga la mooy problème bi. man mosuma gis mbërum fuyee nag Seye doo Michael Jackson de. dafa nang rek. <laughs> mooy loolu ñu waxtaanee. ñëw nga bëre kenn instant. non du fuy. ki daa am yow yow sëñ xanaa xam nga booy nii booy nii. waaw feeñ town feeñ dëkk ne <laughs> booy ay nante lañ. xam naa ne parewuñ xam naa ne kii parewul pour bëre. man maa la wax loolu da am ku lay téye da ngay am benn wóo boo xam ne daan la bàyyil bëre. Eh. léegi adversaire bu la jox nga. saa bu may sosal de bu may sosal de. Maamoor si lu ko neex. Maamoor dama am soxna yaa ngi may sosal de soxna gaa yi di am soxna di am ay gel nga naan am ay nii. yéen da ngeen di am soxna di am gel. li ñu jaani lay def ni mooy lan xam nga. lekkal avance bi ñu bëri maama remise bi pour la. yéen ngeen duy frigo bi ay jën comme ngeen doon lekk yàpp ngeen duy frigo bi. li la yomb ñun moo ñu joxe mais li ñu li ñu yomb ñun moo la jafe quoi. man sama àdduna jën laa gën a bëgg. waaw moom mooy li ma ko wax. moo bëri ak yow yenn saa xam nga li ma ko wax nii mooy firndeel na ko. moom jën la yoon yomb na ko yow yàpp yow. mooy borom jën wi kii barki alxuraanul karim jën woo bëgg si àdduna woo ko. ñoo ngi may ne temps bi jeex na boo amoon kàddu yu mujj lan lay doon. yu mujj yi mais mais kontaan si yow rek li may wax mooy kontaan si émission bi daanaa gis mais dama ko daan rafetlu quoi ndax yow tey xooloo xooloo mbër mu ndaw xooloo mbër moo xamante ni premier combat la da ngay xool combat yu ndaw yi taxaw sax kenn xamu ko yow yaa koy sulli pour gars yi xam ko. Mm-hmm. combat yu si bëri ma gis tamit suñuy morom yi ngi fiy éviter affaire bi neex trop noble mm-hmm. te tamit jox nga mbër cër. te journaliste chaque jour dafa war a jox mbër cër mbër delloo ko journaliste. man jafe na journaliste ooma ma di ko wala nakaan non manul ne. rus naa ko def man kaña lay doon nga ne ma non suba la. loolu la nga ne ma suba la man la suba nga ne ma waaw man la léegi amul problème ban heure la nga ne ma. temps est-ce dina la arranger nga ne la arranger. Mhm. man ni la amul problème. même boo amoon fu may dem sax foo xamante ne du si wàllu làmb dama koy bàyyi ndax làmb. ndax man làmb du ma ko tuutal. voilà mooy li ma la wax mooy kontaan naa si yow bu baax a baax kontaan sa caméraman yi sedd na ci yow kontaan si Kiri Boy kontaan si Mamor mi nga xamante ni tey jii nii ay adversaire lañ quoi. tey yaa waaw ay adversaire lañ c'est parce que tay jii mooy wàllu làmb rek mooy li ma ko wax si làmb rek billaahi wallaahi tallaahi bu ñu war a bëre maa moom dinañ bëre man doxal ma combat méttiwul doxal ma combat méttiwul mais tey ma am na loo xamante ni bu amee rek dañuy dañuy yaakaar ni sa yow làmb bëggoo si dara. maanaam du xem ma fi génnee woo dinaa woo waaw mais du xem tey imaginer ma jóge si booy boo xamante ni ñu bari dem ni ma waroo ko woon jël tey gisoo li ma si fekk tey ma ñëwaat jëlaan maamoor encore mais da ngay liggéey sama wàll su ma wàllu dégg naa la ne. kon ngay jëlal rëg rëg. comme que jëlal jëlal rëg rëg. kon ay booy ay booy lañ. bu ma nee tey Mamor. non da ngay ma xamagul moom ay mbërëm fi de. Mamor man bu ma nee booy Mamor même bu ma xamagul. champion bu mag ma xam naa mu ndaw ndaw ndaw Mamor bu ma xamagul sax maa ko si làmb. danga maa njëkk a siiw rek. kon yow yàgg nga yàgg nga bëre moom man ba ba ma juddoo ba tey maa ngi bëri. waaw ba loolu arène la ak Serigne Bamba. arène la non arène yaa ngi. waaye nag bi saa combat Boy Jules bi saa jël jël benn final. waaw déggoo ma tey boo tey jii bu ñu ko doon boole si parmalee su làmb arène tey duñ ko si lim. te tey moo jël tournoi bu ñëpp doon ñëpp doon. Boy Jules moom champion la moom. Baye Fall Boy Jules moom champion la ah, bu ñu génnee fii roi des champions si ndaw ñi moom la. non moom jàmbaar la. voilà jàmbaar la. champion te kenn ku booy yëpp nangu nañ bëre moom bëggul combat bu yomb. kii combat mu jël bëre mu neex day ñëw indi doole man. parce que xam naa jàmbaar kon daal ak Ama Baldé ay 40 minutes comprendre mais keppaar gi mu nekk keppaar gi mu nekk. champion dañu di hésité ndax si kii mu nekk. mooy loolu mais tey dafa am loo xamante ni bu xasee ba am bu xasee ba am si wàllu làmb foog ñu waxtaanee ka foog ñu waxtaanee ka mais mooy mooy ni ma la si wàllu Mamor du ay jël Reug Reug du ay jël Modou Lô du ay jël Ama mais maanaam wàllu làmb moom mi billaahi wallaahi taalaahi même bu dul man bëgg na bëreex man même bu man bu sañoon tey jii tey tey tey tey tey ñu ne wala Sa Thiès. Mm-hmm. làmb loolu noonu la mel. tey man mii naa nee naa la man xeebu mais tamit am na leneen loo xamante ni mbër bu mën nga. am na leneen lu man sama wàllu làmb. communication baax nga. yaa am na leneen lu ma làmb ndax bëgg naa leneen tamit quoi mais tey jii moom mii nii yàlla xam na ni billaahi wallaahi taalaahi. suñu làmb suñu làmb bu jaadu woon maa moom bu jaadu woon billaahi wallaahi taalaahi ba la ma fiy jógee man la woowal ki la neex te doxal ma combat mi tuul. tàggatool tàggatool ñu tëj. tàggatoo na mais lu ma la lu ma la kii Kara Kara lay nekkal neex. waaw Kara ma Kara moom bi ma nekkee Kër Massar presque moom laa doon entraîné saal quoi. moom saal bi nekkoon si booru extension bi. Mbaye maa ngi koy nuyu bu baax. Kara ah. yàlla na la yàlla may ndam. non jàmbaar combat bi mooy loolu sax lu bari. Naar Sokaas. Naar Sokaas dàq fecc euh, waaw non daanaan la daanaan la mais Kara bu entraîné kenn mënu ko. maa ngi nuyu ñu ko tëgg sax ñoom Lanjang ñoom Ibou Si maa ngi nuyu bu baax. waaw beneen bi du ñaanal bu bees la mais ay ndaanaan lañ te xam naa ne lu ñuy togg bés bu sottee loolu beneen affaire la. waaw di gërëm ñi may jàppale tamit quoi si wàllu làmb ku si mel ni suma mag jaaju ndooy États-Unis Euh, fële Espagne maa ngi koy ñaanal bu baax ak njabootam yaa dégg damay jàppale day sonn si man ku si mal ni may sax su ma pour bi feeraay su ma pour la kooku moom laa muy sama Sadio Mané lépp parce que tamit moom day sonn si ñun ah jës Issa Diène moom day dañuy jàppale moroomu kii la mais xale la mais tamit mu ngi France moom it day dañuy jàppale bu baax a baax a baax a baax yaa ngi dégg mm. di gërëm kii nga xamante ne tey jii nii mooy met ak xotta ay tamsir as na ñoom ñëpp maa ngi leen di bu baax a baax a baax parce tey nit ki la yor dërëm sax kooku noonu waroo ko mën a fàtte ndax làmb ki lay jàppale si ba muy teel bi la kenn xamulee kooku tey moom nga war a teg foo xamante ni doo doo fa teg sax borom milliard bi man loolu la gëm man ki may jox cent yi ñaar dërëm kooku tey man mënuma leen fàtte di gërëm nurkat yi di leen gërëm bu baax a baax a baax plongeurs yi. Hmm. maa ngi leen di gërëm bu baax baax baax kenn du ñoom ay jàmbaar lañ tamit di gërëm kiri mi nga xamante ni moom laay àndal kiri booy kii foo ko oo ne muy wàllu làmb lu mu jàppoon agi dafa a liggéey nii man maa tax mu dëggab liggéeyam pour ñëw hmm. kon moom mi manuma ko fay di gërëm waa Yoff gépp di ñaanal boo yi nga xamante ne am nañ fa ay combat ku si mel ne ay ñoom sekk ndaanaan maa ngi koy ñaanal tamit combat bii mu jëm nii mu am si ndam lu rëy ñi nga xamante ne desaan nañ fa mooy ñi nga war a bëriwaat ay joolaa ah ñeneen ah ñeneen ñi nga ay garga ñi war a bëri si équipe bi ñoom ñoom maa ngeen leen ñaanal ñoom yàlla defal leen ndam lu rëy mm-hmm. di gërëm ñi nga xamante ne tey jii mooy wàllu Yoff gépp nañ ñu jàppale ki nga xamante ni mooy suñu maire bi fan ne nii gañe ñu ngi koy ñaanal affaire bi jikka ñun ñi nga xamante ni mooy ñii àndoon ak ñenn ñi te ñàkk ñu ngi leen bu baax a baax di gërëm ki nga xamante ni nag mooy Moustapha Tall Moustapha Tall kooku damay jàppale bu baax a baax a baax a baax suma combat bi passé 800000 la génn jox ma pour wàllu ticket yi jël mille jox ma na ma demal nga préparé kaar yi. kooku la jël carrément na ma jëlal nga yóbbu kon kooku mënuma ko jënde kenn. ku lu ma waay masul defal man dama daan bëri ba pare wàllu ticket yi ma am si problème loolu day dal yëpp yaa ngi dégg moo tax tey boo gisee ticket ñun mooy suñu problème ñun mën nañ di bëri sax samedi dimanche buñ amoon ku ñuy assurél ticket chaque jour barki alxuraanul karim combat du doon suñu problème ndax làmba ñun mën a guñ si am xaalis mën a guñ si am xaalis mais yow Zin maa ngi lay a baax a nga xamante suñu mbokku mbër la amet loo sama booy la da doon ñëw ba sama koñ doon àndaax sekk ndaanaan waaw am na loo xamante ne du kaa ndax bu ma ko waxee tam gaa a xamal kat quoi ndax mooy loolu yàlla def na ni jàppe na boppam mbër te dama koy encouragé bu baax a baax a baax a baax ndax mu ngi lalu lu mu daan def lu si bari tey jii fu mu daan nekk di taxawaala yooyu yëpp defatu ko tey moo sekk ndaanaan ñoo daaxul dox si àdduna sekk moom ba léegi kon woon ay t booy yéen jàpp ne ñoom ñaar sax ay seex lañ da ngay romb kii léegi fii nga duggaat fii romb ko moo sekk ndaanaan mais di leen ñaanal seen ànd bi yàlla na continuer ñoom ñaar di leen ñaanal carrément lépp loo xamante ni moom lañ bëgg si làmb yàlla defal leen ko quoi di la gërëm yow mi tamit Zin ndax kontaan naa daal kontaan naa. loo kontaan rek maa la gën a kontaan. di gërëm Mamor sama gaayan sama doom day bis ci tey jàpp naa ko gaayan yaa ngi dégg teewul nag bu ñu waree bëre maa moom dinañ bëre ko yow daan di gërëm. àdduna bi yëpp nice waaw nice ndax xam nga rek ñun plateau li ñu def sax da ngay noppi hmm. voilà li ñu koy def laa mos a toog nit mu gën ma bari wax waaw <laughs> ndax xam nga rek ay doomu géwal laay nekkal nag doomu géwal pire laa ma ay doomu géwal ay seekandaa naan ay caatu géwal ñoom laay nekk ñooñu ay champion lañ. waaw ñooñu yaa leen a nekk champion nag. waaw daanaan. tàggatoo fi mu toll nii baab nga ko. waaw lu may tàggatoo mooy xam di sant yàlla di gërëm sama doomu nday Landing man kee laa am borom dal ko laa sigee. fu ma nit woo ci Sénégal bi may dem aéroport di yëg avion sax moo ma yóbbu barke Seydina Mouhamad tey max fu ma jëm moo ma yóbbu. sama yére laa ko aal nee sax <laughs> barke yàlla sedd la mewul du sangu. barki yàlla di gërëm xaarim du sekk di gërëm bu wofit sama doomu ndey xam nga na ko gars yi jël bu wofit Fass Mbao daa am ay champion yu fa nekk ay xale yu xam nga ay Papi Junior ay Père Mbaye Ibos xam nga booyee bëreeguñ xam nga nañ leen bàyyi xel promoteur yi tamit dañuy dugg foofu di jox booy combat. Mm-hmm. comprendre xam boo nekkee si igri yow ko ngay bëre rek. waaw day am yaa ma gën a xam. ñu ma gën a nekk champion ñoo fa nekk ñu ma daa ko bëre ëpp ma doole mais xëy na xam nga yàlla moo dogal rek xam nga nu muy dogal ko waa di gërëm Jelaani sama mag sama combat da siy sonn sama yaay suñu waa kër di gërëm Vémas di gërëm Moussoy mhm. xam nga di gërëm Abdou Sène njaga 221 pneumatique Baba Ndiaye jeune transitaire man ñi may jàppale ñëpp ay xale lañ ay Omar Ndour Moussoulay Khoudou Sow Doro xam nga di gërëm waa Thiaw sa xiir Pape Gueye Pape Gueye xam nga da doon xëccoo maire bi ki may toggal sees su may bëree mais dafa ñàkk moom ñoo ngi koy ñaanal xam nga di ko wax tamit ñoo ngi si ginnaawam bu baax a baax a baax di bëggee àdduna di bëggee waa seraas ak waa Fora mafia caw sa xiir bi ñoo ngi woo ñëpp ak waa bàngoo booy di nuyu sam booy yëpp ñoom moo ñoom papa xam santaat yàlla bu baax a baax combat bi nii ñu jóge nii gaa yi dama leen amel bor dama ko bëgg a fay te si kii laa ko bëgg a fayee <laughs> bi mu fi nekk sax di wax wax ju bari yéen xam ngeen la nekk sama xol ndam laa tàmm xaw ma defet tàmm ma ko te moom gën na bëre na ñëw ñu bëre. kawak bi nga daanu bi ma la fekk Arène na la waxal nga ne lan laay wax ma daanu di wax waaw xaw ma loolu kii na mu ñëw ñu bëri ñu neexal làmb ji làmb ji daa fay nii làmb moo loolu la man instant yi mooy sama roi des arènes bi moom moo ko yor <laughs> moom bëgg a dem yow jëli couronne bi lekkaale si jën yi <laughs> du yow di mooy loolu li ko déggee bu baax moom daanaan la xama koy dalal champion la mm. moo tax ma bëgg a bëreeg moom mm. moo ma gën a nekk champion mm. defu moo fi oh, dara sax mais moom champion la quoi moo tax ma sawar ñëw fii nii xam nga pour la wax naa la daanaan la. jàmmaar la yàlla xam na loolu jandal bërëla la. daanaan yëpp. daanaan la combat bi taxaw. di gërëm tamit te bu ñu wàccee ñu maye ko nag. di dañ koy maye caméra ko. di gërëm aaw buur këram. ma jóge ma ko wax de. eh foog ma gërëm ko waaw ay aaw buur këram yëpp mooy loolu. ñu maye ko baax a baax a baax su ma zimo. moo ja mbër loolu moom différent don la bu la neexee sax moom naka dégg loolu par force la ñun du ñu góoru benn jabar kon lii saa di def Mamor ñun duñ loolu de. man aw ma gel. voilà noonu la demee Mamor. maa ngi sama place ba deux heures du matin ma tëj. booboo gën a neex sax wow man aw ma kenn ma doxaan. di di bëgg bu baax a baax a baax. Ah, saa nag di ko ñaanal bu baax a baax yàlla ko yàlla may combat bu baax a baax a baax. di gërëm ñu mayee di ko. di gërëm tamit jabaram. di ko bëggee bu baax a baax ko kenn la si man. Modja da di kenn si man. di di féliciter Thiatou Yoff si combat bi mu jógee. combat bu rëy bii mu jógee. muy ndam lu rëy maa ngi siy encouragé di ko xamal ne yàlla na ko yàlla may combat bu baax a baax di encouragé ñi nga xamante ni mooy ñi si nekkoon am defet ku si mel ni Thiatou Ngéwal doomu yoof ah Ongué Ndiaye ndax suñuy boole lañ tamit quoi ndax laa moom moo looloo ànd tamit quoi. Mm. ku bañ a daanu rek bul takk ngemb quoi. gis ngeen ku bañ a daanu bul takk ngemb. Mm. lii leen andiloon tey ci jàmmaarloo maa ngi gërëm ki nga xamante ni mooy jin bu yoof di gërëm ki nga xamante ni mooy Mamor di leen jox dig daje beneen yoon Wassare Lamb ak yeneen mbër jaa ngeen